di la promoteur de l'alternance Serigne Modou Niang Serigne Modou nag réew mi ñëpp xamoon nañu ko waaye xam nañu digganteem ak Soxna Fallou Fall ci bëgg gum ko bëggoon ci yëg gumu ko yëgoon ci fonk gumu ko fonkoon nee naa lu mosaan a jafe ci biir sax boo jaaree ci soxna si bëggee ko ci sëñ Modou bu soxna si waxee ak moom nga am ko ni nga ko bëggee wax mën nañu wax ni que mooy dixième édition de la pause soxna Fallou Fall loolu yombul di ànd bu rafet di ànd nawle waye di and gor kon mu nouvelle bobu amé dal ci askanu Sénégal rawatina ci monu lamb yoon lañu set fal fal. fal Fall waxtaan ak mom mu wax ñu deug deug nak kan mo nekkon sun Modou sonna si ñu ngi lay nuyu di la ziar bàyyi la nga nuyu ñu lay assalamu ah, alaykum wa rahmatullah ma ngi len di delo nuyu di len delo ziar di len jaajeufal lu bare bare ci sen teway di doli di sant yalla rek di julli ci yonentou bu tedd bi sallallahu alayhi wa di eh, wax nag ne am na nu tiis tiis woo xam ni monde bi laa koy jaale muy Serigne Modou Niang di ko jaale Afrique di ko jaale Sénégal di ko jaare axlu làmb di ko jaale ménager yi di ko jaale promoteur yi di ko jaale ministre des sports di ko jaale njabootam yëpp ak mbër yu ndaw yëpp tiis gi daal la am ci sëñ Modou di sama càmmiñ di sama xarit di sama wëllëre maa ngi koy jaale àddina bi yëpp. kan moo kan moo dul sëñ Modou Niang. waaw sëñ Modou de nekk na nit koo xam ni nekk na ci àdduna ba jóge fi ñi ko xam bariwul ndax nekkoon na nit ku discret nit ku simple nit ku fonk doomu aadama nit ku am kóllëre nit ku fonk nitam nit ku mën nitam nit ku daan yëngu ci social. nit ku am diine nit ku am lislaam nit ku bëggoon sëñ Touba bëgg bëgg sëñ Fallou nit koo xam ne lum la wax ren ba déwén ba daaw du mës a deñ kooku mooy sëñ Modou ku am yërmande ku yërëm jigéen ku yërëm ndaw ñi ku jàppale askanu réew bi yëpp maanaam àddina bi yëpp ku nekk am na ci yow jàppale ndax tey su jàppalee sa rakk wala mu jàppale sa jarbaat ci làmb ji yow mi nekk Europe ak foo munti ne mel na ni jàppale na la te ku jàppale suñu ndaw yi réew yi rek jàppale nga àddina yëpp kooku mooy sëñ Modou. sa kóllëre ak moom wala seen xamante ci naka la sababu. waa sëñ moodu Niang yàlla daa dogal ñu xamante ci social maanaam ci mbër mbëri ndaw yi ndax tamit ñun dañoo njaboote ay mbër macha allah. bu daan ñëw ku nekk daf ma daan wax ni ñi nekk nañ ci écrit ay un an deux ans suñu bëri man nag bés ma gis jëmmi sëñ moodu ñeme ko nag ma volontaire dem këram te xamuma xaw ma ko xam nga baax rekk fa la fekk baax. bi ma ñëwee mu dalal ma recevoir ma ne ma de bu doon li bu ma xamoon ni de danga ma yittewoo soo ma woon sax man ma déplacé wu ñëw wuy si duma ko fàtte maa ngi yóbbu ñetti oto yóbbaale 21 mbër ñu xaar ma ci biti ma ne ko man de sama njaboot gii de dañoo yàgg di ci écrit te mosuñoo bëre ma bëggoon nag ñu avancé ndax koo ci wax danaan la dama bëgg dimbali sama yaay dama bëgg dimbali samay famille dama bëgg avancé te nag ndaw bu bëggee liggéey am jom soo ko jàppalee rek yàlla dala ci bindal tuyaaba mu ne ma soxna si jox ma seen tur mu bind ñoom ñëpp seen tur tubaar fakalla macha allah ne ma ñoom ñëpp at bii dina bëre ñaari yoon ku nekk te nam ko waxee noonu la ko defee. te mbër yooyu tey ay champion lañ ñu ngi leen di tudd fu ne ñu ngi yore seeni famille uuf seeni njaboot yor seen teranga te lépp mu ngi jaare moom ci loxoom ci noonu la ñu xamante mu ne ma soxna si daal man dama gis ci yow social ndax tey mënoon ngaa nekk ci sa liggéey rek bañ a jàppale xale yi te yaa ngi ñëw sama kër ay 11h ci guddi ngay soxna ànd ak ñoo xam ni duñ say doom duñ say njaboot mu ne ma geste boobu nga def man daf ma marqué ba dama la téel sama bopp def la sama jigen def la sama xarit suñu xamel nak ci li la tambalé bi nga togué yek nouvelle bobu sa première réaction la wa bet na ma nak ndax señ Modou mo nax na ma ba dem bet na ma waye nak ñun tamit ay sëriñ lañ dañuy def ay ñaan bon on n'est pas ordinaire amna luñu yalla may wa ay tan da na ko wax sulay sama rak maniko seigne Modou de gis na ci mom tawatu yaram way nak seigne Modou ku nek xamna na ni jàmbaar la toujours foko fek du onku du jambar du jambat te day tawat sax ci nima ko gisee di ñew ci lam manam borom jom la nit ku am joma ngi non waye nak bi ma nouvelle bi wax deug sama rak wax ah nekkon na lo xamni ne jele jele na ma kaw lol sax lol trop ndax sama jëm ji seigne Modou daf ma fété fo xamni ah sori na lol de ci nek sama confident ci nek sama xarit ba pare yor qualité jikko yo xamni tay boko boo doon wër di nga dox ba sa dal dag nga soko gis mën nitam respecté nitam fonku nitam yalla dogalit si suñu liggéey ñu ñu yalla boole ñi ci liggéey ndax man sëriñ la mais nak dama am boutique yo xamni dañ yor produit tay suma duggé tay ci lamb yalla ak sëñ Modou la ndax moma ni ne soxna ci mané ko naam mu man dama la bëgg jappalé ndax yow da ngay jappalé mbeur yewet sa produit mën nga nek sponsor dama ré mané ko sëñ Modou lool nu mu nekkee man lamb yi man sëriñ la nangam ñu waxtaanti mu am kum ma bolel koku moma expliquer ni ñi défaré bâche ak ni ñi défé yépp ma ñew mu yombalal ma lépp tuwaat fakka ma sha allah fokk na ça fait 10 ans ñoo ngi liggéey mhm. ma and ak mom ci sponsor ndax nit tamit soko ko jappalé dang koy fekk ci limuy liggéey mom daf ma fekk ci liggéey ci produit man ma fekk ci ko ci limuy liggéey ci walu lamb ñu andati and bi gëna rafet sama liggéey ak mom, musuma ci am luma ma naqari daf may taqal samay baas comme ni mu waree produit yi am na visibilité macha allah bu signature amee wala dara dafay woo sama rakk bi Souleymane direct ne ko suba am nañ signature wala gannaaw ëllëg maanaam daal sëñ Modou amee lu ma benn àq. Hmm. ci liggéey bi ñuy liggéey amee lu ma benn àq man kay maa ko deseel njukkal bi ma yëgee lool nag sama xel daw na fu sori maanaam ba ñuy soog a xamante. ni ñu xamante ci xale ndaw yooyu ma ko yóbbuloon te ndaw yooyu léegi. li ay champion lañ liñ ci yéene woon yàlla matale na ko mu gunge leen ba nu yegg fa nu war a yegg. sama xel dem ci liggéey bi ñu ànd liggéey bu rafet bi sama xel dem ji fu ma tëll ci mbooloo bu buñ ma nuyoo ba pare sëñ Modou Niang lañ may njëkk a laaj lu ma jaaxal nag moom ma waxtaanteeg moom mu ne moom fu mu dem dañ ne ko naan waaye ana soxna na fi. mun leen mu ngi fi. sëñ Modou rek laa koy déggee soxna dafa mel ni moom ko moom rek la ko nangu. a ah, xam nga sëñ Modou yéenem ci man ndeysaan kenn mënu ko natt ndax dafa ma daan tuddee drapeau benn bés mu ma ne ma soxna at bu ne yow laay tijjee loolu buur lu ko at bu ne man lay tijjee di xol bu sedd guy bon nag bi ma yëgee loolu sama xel dem na ci ndax toog naa lu yàgg nag xalaat fi ma jaar ak ci teranga ci wax ju rafet sëñ Modou man mosuma gis meram mosuma gis meram mosuma gis lu ko naqari loo ko wax mun la waaw baax na ba pare nag buur nekkoon ku dummuyu àdduna man loolu jaaxaloon na ma ci moom loolu dafa dummuyu woon àdduna doo dox ba dajeeg moom doo ko dégg ci ay détails doo ko dégg ci tontante fu ñuy bu amee ñuy coow sax day noppi jàpp ñàmburam waaye nag am naa lu ma naqari torop nag ndax sama nit sama càmmiñ sama deret sama complice sama xarit moo fi jóge waaye nag dañuy dellu ci yàlla suñu borom ndax yàlla fa la ñu jóge te fa la ñuy dellu macha allah. soxna fi ñëpp ñàkk foofu rek lañ del suwaat ci yàlla. soxna fi dafa am coloré ci ànd. man je me rappelle édition yi sëñ moo def ak yooyu du ci bari boo fekkul njëlbeen nga it fekk naa ci lu bari. xam ne da nga daan togg ay añ ah invité say nit def ay kaar ñu tekk fii cortège dem stade Iba moom moo daan gàttanul boppam moom personnellement te ci sa loxo nii ngeen jàppante ci kaw tribune bi tey valeur yooyu sonn na fi eh, jikkoo surtout muy kóllëre kóllëre l'exemple est là man mi depuis 2013 laa la xam <laughs> man ëpp na fukki xam nga jamono ji dañoo manqué lu bare bare moo tax léegi kenn xàmmeetul kenn ñu bari ñu ngi taxaw di laaj kan mooy suñu nit kan la ñu war a wóolu kan mooy suñu xarit parce que kóllëre bu njëkk suñu réew mii moom lañ daan doxal soo daan xam ne toujours da daan rafet rek même bu la tooñee sax nga ni kii sama kóllëre la naa rafetal ñun nag valeur boobu suñuy waajur dañu cee tàggat maanaam nit koo xas xam rek nay rafet ngeen di rafetal seen kóllëre ba yàlla def li mu namm kóllëre googu nag dafa nekk ci ñun yow tamit dafa ne ci yow ndax ay ati at ñu ngi ànd moom tamit dafa nekk ci moom xam nga nit ñu bokk ji rek ñoo mën a ànd waaye un ak huit nuru nañu ànd nañu waaye nuruñu ay alif. sama nafit du werante ci internet du wax wax bu ñaw ci internet doo ko dégg mukk ñu wane son image ñu ne def na lu mu war def. valeur yi na fi di doxee tey ba mën a am ñu mel ni sëñ Modou. waa xam nga lépp loo gis rek ci base la maanaam éducation xam nga ñun tamit dañoo judd ci famille homme de tenue maanaam ci famille tenue ñu yar ñu ñu jàng dañoo jàng école nag macha allah ñu yar ñu fi ñuy war a yare ñuy jóg heure di tëdd heure ñu gàttaloo ñu suñu làmmiñ gàttaloo ñu suñu tànk. teg ñu ci yoon ba tax na bëgguñu ameel kenn ak suñu àdduna duñu dugg ci lu suñu yoon nekkul duñu wax lu suñu yoon nekkul bëgguñu tooñ ndax bëgguñu kuñu ku ñuy tooñ ndax nit bu bulul tooñ rek xamal ni kooku bëggul ku ko tooñ duñ dugg ci vie privée jàmm ndax ku nekk am nga looy làq mm. duñu lijjanti nit ndax tamit

man non mhm. je parle peu je travaille beaucoup soxna si ku ne xam ne ni euh, réew mi tey bu euh, na éducatrice la mooy yarkat la parent la tey réew mu ngi jëm ci coow loo xam yaay yëpp tiit la ba noppi am ñu mën vidéo son fi vidéo ba mu jur xë xë xëtloo boo xam ni bu ñu moytulee ci jaamaar loola jëm soxna si amoon benn message bu muy lancé jëmale ko ci ndaw réew mi wala boog ci ñi ñu yilif pour que jàmm mën a am ci réew mi. xanaa ñaan yàlla rek mu defal ñu jàmm suñu réew mi waaw loolu rek laa am lu ma ci wax yàlla nañu yàlla defal jàmm daal ci réew mi. yàlla nañu yàlla defal jàmm ci réew mi soxna si ku ne xam na ni euh, ñu ngi sa weeru sa waaj yi Cheikh Mouhamadul Fadel. man mi fekk na la ba Touba eh, soxna si mu ngi waaj màggal gi astafurlaa mu ngi koy sax soxna si nu muy dundee weer wi boog bëgg wax. di dellu di sant yàlla rek ndax fekkee rek ab cant la hmm. nit loo fekkee rek da nga war wax alhamdulilah sant yàlla bu baax baax di ñaan yàlla yal na yàlla dolli leeram sëñ Fallou ku nekk xam na hmm. ma def hmm. ak lim ma defal. Mm-hmm. jaratul di expliquer waaye kasu rajab suñu kasu rajab la weer wi suñu weer la mm-hmm. moo tax weer bi mu tombeek sama càmmiñ li bawoo fi mm-hmm. ah gën naa gëmati suñu ànd dëgg la ndax dañu mës a toog ma ne ko ah sëñ Modou de yow dafa am noo ma foo ma teg ku kawe foo tegul kenn mu ne ma soxna si man dama ànd ak yow ngir jëmbi sëñ Touba ak sëñ Fallou bon weer bi bu fi bawoo rek Ah, ñu xamni le tamit lepp yalla euh, wéral nako ba mu wër ci kàddu ya waxon wa ñu ngi doli di sant yalla bu baax di ñaan euh, nit ñi ñu teggu ci tali bi ci nank daw nank ba bés ba yalla may ñu ñu yendu ci bés ba ci jamm ak salam lepp lu ci way yene it yàlla na ko matale ba mu mat Euh, bi ñu annoncé combat Ama Baldé Modou Lô mën naa wax nekk ay at la ci ginnaaw bokkoon nga sur les rares personnes yi woon ni ah dëgg-dëgg wax dëgg yàlla du ma wax ci làmb waaye combat bi gisuma ak amam soxna si bi ñuy wax loolu fan la ko tegoon. ci xam fi ñu ko teg ci xam-xam la ñun lépp lu ñuy def dañ koy saytu ci xam-xam ba noppi ndax dañoo xool seen biddéew ñoom ñaar ñu bokk benn biddéew. waaw ñu bokk benn biddéew ñu xool ki ko tëggit xool mbir mi fanaanoo ko saytu ko ci lañuy ñuy soog a wax loolu ndax tamit ñun duñu tëb rekk wax dañuy xool ba mu leer neexul woon dégg moom mm-hmm. waaye nag loolu la ñu gis loolu la ñu wax te bu ñu sañoon nag wax dëgg yàlla képp ku taxawal bés rek yàlla matale ko ndax ñun ñëpp la ñu yéene jàmm waaye nag am na yoo xam ne buñ ko gisee tamit mu leer naa ñit fawit dañ koy wax mu am lu mu gis loo xam ne man xam naa la